ibulaay yaay baye yaay ana papa max mbergan yaa gore billaay asise yow laay bege ana max mbergan yaay yaa gore ay waay ana askay yaa gore ana asise garmi yaange ay yaay waaw waaw baam yóbbu ñaari doomu yaay ñooy bare ñaari doomu yaay booy ñooy bu lamb sajjee ba ngooy bare leen oh, bare leen ñaari doomu yaay booy ñooy bare ñaari doomu yaay booy ñooy bare waaw aa yaay bare leen ku ma sa moroom yóbbu ndam bëre leen Samba bu lamb sajee ñaari doomu yaay Samba Yande Ngam Njaay Gigi jor na aca jóg taxaw yee ñaar la àdduna di xaar yee ñaar la Sénégal di xaar muy bés bu am solo bés bu jar a bàyyi xel le 16 juillet lay am ci arène national mu war a doon en direct ci Bantamba TV macha allah Abou Ndiassé Kiro Seras yee ñaar à vous Bantamba TV à vous. waaw awuzu billah bismillah inna waali yàlla di wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall di wax jaaraama maam Saliou Fall borom daaru xafoor di wax jaaraama maam Saliou Fall borom daaru xafoor xam nga di sant waa xuru Mbàkke waa daaru salaam diwooli xam nga waa dindee kër ardo ñëpp rek ñi may ñaanal xam nga di nuyu waa war jaxal saata waali ndoofaan liikeem ñëpp rek ñi may ñaanal maa leen sant bu baax ak waa faaju waa joof yoor xam nga Simal bàyyi ma fenn waa Fimela tamit xam nga sama père père Mambay borom Diofior maa la lay bu baax ak sama papa Passaar borom Daaru Tawba maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaw di nuyu munde borom Zowal xam nga Sidaat ñëpp rek sama papa Blaise bàyyi ma kenn su limee damay juum ñu Marcel ñëpp père Jean maa leen sant ñoom ñëpp. fi nekk ñëpp nag ah. waaw ndeysaan ayca ñëpp di sant ñëpp ginnaaw bi ma sante yàlla julli si yenante bi di sant samay ñaari waajur di santaat sama waajur bu baax a baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan di santaat sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan waaw di ko santaat bu baax waaw di waaw combat bi daal fonk naa ko torop waaw te xam nga yaakaar naa ni le si soreetul quoi wax ji bëri na trop nag waaw wax ji bëri na trop mais li may mën a wax mooy diis mënu rey aas waaw di wax combat bi dama ko fonk moo tax bëgguma si nekk sax chaque jour werante wax parce que maa moom amul ku si xaar sa moroom moom sax xam na loolu moom xam na. dégg nga de. waaw question de werante de. Mhm. mais tey boo amee loo war a wax da mhm. ma wax. amee lu may wax ma wax loolu moo jaadu. mais dama ne man dama dépassé niveau ngay wax may wax. foo teg loolu. non parce que sequñu loolu. làmb moo ñu boole. lan moo tax. non mais li avance waaw ba tey nangu naa moo ñu boole. non man yow ay ree moo def la xam ne làmb moo ñu boole. lan moo tax waruma wax ak yow. non dama moo tax. mais làmb moo ñu boole. ma ma dégguma de déggin la laaj. man dégg nag dëkkaayam. waaw loolu sa la. loolu tamit nga lijjanti ko. dégguma la sa problème la. yow loolu yow sa problème la yow. bu ma laal la waxal te bu ma laal. parce que la wax. du ma la may dara. da nga wax kuy ñaan da nga wax kuy ñaan. waaw dama lay wax fi nii barke maam Seydou Fall dara du si denc. maa la doole maa la dàq bëre maa la ëpp sañ-sañ maa ku dàq bëre ku dàq bëre mm-hmm. ah ëpp doole ëpp sañ-sañ ëpp fit bu guy am ngeen ci kàttan neex doo noppi ngeen a am yow xam naa ne yow xanaa xamul xanaa xamoo ne yaa ngi a a a cuuni man ñi ma bu ma laal sa micro bi laal bu ma laal de. day teel a bu ma laal dama koy faj léegi fii laa joo toog nga sera. man ngay faj. man ngay faj. barki leeru alxuraanu. bu ma laal. waaw loolu ngay xaar bu ma laalee. bu ma laalee doo doxoon doole. dama ko toog rek moom. sëriñ Tuuba dama ko toog. dama ko toog. dama ko. faj. man ngay faj. barki maam seere fa jàpp daan la si kàttanu yàlla wóor na alxuraan doom laay wala ma lay daal si kàttanu yàlla ak wee daxamu bëre ga mal dàq bëre su ma la ko waxee sa bopp bi di metti mal dàq bëre fuuf su ma la ko waxee sa bopp bi di metti muy metti déggoo ma dinaa la wan dàq bëre bu billaahi wallaahi si kàttanu yàlla dama ni dama mën a bëri fii xanaa ba bés combat bi nga koy nangu faw ba bés ba si combat bi nga koy nangu waa léegi yéen ñaar bu abi siflee kuy kuy dox sa kaw morom. si kattanu yàlla Modou Mbaye dégg bi moo la ko gën a mu taxaw fi naan day chaque jour nax si ay bëre. ah jour dañ may nax si ay bëre. Ah. léegi dama. Modou Mbaye da ngay signature ak mbër mën na la hey lii ak lii fekk li muy wax gëmu si dara. ok man nag dama man dama am benn. bu nekk si man man loo wax. man bu man loolu ngay ah, man noonu laa mel. ok jaase wuy la wax de billaahi wal kitaab bi naxuma la. waaw baax na ñëw li ma lay wax. nii ak loolu dara mais dama ne la. pour teg la xel. waaw coori jëm li ma lay loolu laay appliqué. parce que maam Seera Fall li ma la wax loolu laay appliqué. xam naa dañuy daje. waaw yàlla dimbali na ma musuma xaar xaw ma loolu. waaw ñëwal. loolu nga xam ko man sa kaw la li nga wax li nga wax li yow li nga wax la la yow xoolal kii maa ko da doon kontaan ak ñoom père Max mais léegi eh, ah, da doon lan da doon lan da doon lan da doon lan xanaa da dof yow guro daj bu nekk xanaa dox la may contact ndaw laa may sama caat yaay dëgg am quatre am caat may defet léegi léegi léegi monsieur le parrain ñoom ñaar lañu ñoom ñaar lañ la tuddee Ndiasse léegi ñu taxaw ñëw déglu parrain bi ñoom ñaar lañ la tuddee yaakaar naa dañu fi dañu fiy jaare joxe waale kàddu dañu fiy joxe euh, na fi doy det père fii c'est le bantamba duñ ko yàq ñii ay copain lañ dañuy tooñ ñii rek yaakaar naa dañ fiy jaare joxe waale kàddu gu mujj gi lan ngay wax xale yi ak lan ngay mujjee wax ñi nga xamante ne nii ñoo lay xaar ci bis ba waaw bon yéen ñi di gërëm moor encore di ko remercier ak Babacar ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal aussi di remercier waa Pikine. di remercier waa Pikine. Mm. parce que vraiment yéen ñi nga xam ne moom laa tuddee combat bi Mor si yaakaar naa bëgg muy wax lu mu leen lu leen dencal. parce que mm. su ma ko waxee ku nekk day rey boppam mm. te du ko jaar donc dama bëgg ñu gis bëree ku nekk bëree. fair play aussi ñu xam ne ne foo agré la quoi mu bañ am violence. léegi nag après ñu dencal noonu. waaw. sama bës ak boole ko nga jox ko moom. Ah. déedéet ah, loolu amul. non non ku ne benn la. kii dafa doy laamiñ réew. arrêté woon nii rek. war na maam Cheikh Falam. dañuy gañe mu la bëgg nga jàpp ko sa bopp. déggoo ma la man naa la dul xaar yow si léegi. léegi yow ku lay ma ne nag yow. li nga war a def yow def ko rek. waaw yow yaa fi nekk di calculer ay minutes. Eh, waaw man damaa bàyyi waaw naa la bañ a xaar mun naa la bañ a xaar lu bëre deux jours. ay eh, Adja yéen a ñu fi bàyyi nag fi mu toll bokkuma ak sax yéen mbër yi ngay kii nii. dof woote leen woote leen woote leen. dof moo am këram di nga bëre la woote leen. a ngi bëre waaw. Eh, Abou nga woote. am Ndiassé père Max mu ne nga woote. bu ko jugee xam nga woo jàmm gën Sicap Mbao. Lamsaar jàmm gën Sicap Mbao Lamsaar ginnaaw waay Poste Kër Mbaye Fall. waaw. di woo banlieue ndax man la mbëru man la mbëru jàmbaare loolu yàlla moo ma ko nangu. dëgg la ndeysaan ma koy nangu. bu ma jugee ñëppay jóg. macha yàlla moo ma ko natoo xam nga di nag ci yar ak teggin. parce dama weer dung man a waxee. yow waa ji waa zone boobu dañ laa bëgg booy bëree ñëppay ñëw. waaw moo tax voyageur baa ngi nii. Ah? may waxal. déggoo ma de. loo bax ngeer ko. parce que alxuraan man woo. jàmbaar di woo sama mag joba di woo ak jëkkëram Moñ Njaay Ousmane bu ndaw bu ma fa jógee xam nga maa ngi woo mel ni Albala jëf xam nga waaw dikam Bamba koo sama mag bu ma fa jógee maa ngi woo Lamsaar ku ma mën a jàppale nga ñoo jàppale di woo kenn bugul maa ngi koy woo kenn bugul xam nga di woo Yaay Fall Azir di woo Cheikh Sarr di woo Balla Giroy <laughs> waaw di woo kenn bëgg di woo am maa ngi koy sant bu baax am sama waay di woo am sama gaayan maa ngi koy sant bu baax aw ma fayam am xam na bu baax boppam di ko maa ngi koy sant di woo jàmm gën ñëpp bu ma limee damay juum waa di wax nag sa sasuma kenn dara ku ma mën a jëndal ay billets kaar kaar ma jël parce que waaw maanaam mbooloo bi moo tax maa ngi woo ku ma mën a dimbali dimbali ma si ay kaar. Mm-hmm. ma jël. macha allah bu ma ko deful tamit damay dox. ma la sombaay estat ba fay te circulation laay bañ a. si dëkk bi dëgg la waaw buñ ma jëndalee billet tam ma jël. dëgg la Adja mais Giro wooteel. waaw xam bu ma bu ma paree damay sant ñi ma àndal. Habib. <laughs> xoolal ah, télévision lañ nekk mu jox mu temps jàpp leen si rek yéen ñaar samay copain ngeen jàppale leen ma rek. ñooñu moo mm. ma sant leen Bada. Adja Tafa mm-hmm. ñoom laa àndal ñëw fii. jaajëf bëgguma sonal kenn gars yi nag ñëpp bëggoon ñëw. waaw man non non ñun ñëpp toog. Mm. man rek mën naa dem. macha allah ma mais kenn laa bëggoon àndal. macha allah waaw. jaajëf Pege. Giro wooteel. waaw xam di woo waa parcelle bu baax. Mm. xam di woo sama nijaay si Kaaw sa ñaas taxawal. Kaaw Sidi borom Seras. Mm. maa ngi koy woo bu baax di ko wax Kaaw. combat ko combat ma combat ko combat ma ah. di si woo xam nga eh. si mel ni Yoro xam nga ñoom Pape xam nga waa Seras ñëpp caat saa ñaambur ñëpp maa xam nga di si tamit xam nga président Lat Diop quoi. Mhm. xam nga DG Lonase. Mhm. est ce xam nga li ma la. bu baax ñun amuñu fayam quoi. macha allah sant di ko gërëm. ñu koy ñaanal jàmm rek. macha allah xam nga di woo wax maanaam moor quoi. xam nga parcelle la dëkk. promoteur bu bees la mais du promoteur bu ndaw. xam nga da nga ko a teg loxo quoi taxaw ko. mbëru yëpp nga jëndal leen ay ticket. Pape Malick maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax. di si woo xam nga sama grand Ibulaay xam nga Papa Sow Modou Lo xam nga Ba maa ngi koy woo bu baax ak ñum père ba sama grand Ali Sarr Assane Wade ñëpp rek ñi nga xam ne dañ may ñaanal xam sama grand Mambay borom Canada maa ngi koy sant Cheikh si borom Canada ñëpp. xoolal feuille bi waaye xoolal feuille bi li feuille bi daa bari gaawal. ñu nekk maanaam tey jii nii ku si mel ni tamit ñu baabooy sama grand Mamadou Ndiaye papi général. xam nga mhm. sama tons Kéba Kanté. maire Aïda borom Inte koy woo si combat xam nga di si woo tamit Maguette waa kër gi ñëpp xam nga di si woo tamit Serge quoi alliance maa ngi lay hmm. waa doole ECHO. ay sant Kara tamit ay jàpp samay ñoom ñëpp xam nga fépp fu ay daaka bi ma fi bu mu dem. waaw bu wax. lees waxul noonu la demee xam di si woo Moussa Ndiaye. Eh, borom France. Xaarim Bamba Ndiaye Assane ak Ousseynou Cheikh yi borom saal bi. xam nga ñum Mbassa. Mbassa aw ma fayam quoi. nongo Kolobaan ñum Cheikh si Mbaye Fadja xam nga. ma ñëw grand Mambay ñoom ñëpp sama gàmb ji. képp rek koo xamante ne bii bëggee giro quoi. xam nga di temps bi moo xat quoi. moo tax ma sant ñëpp ñi ma àndal nekk ma seen fay. amul ragal yow la jëli ko. su ma limee damay juum maa ngi nuyu ñëpp. du nuyu tamit xam nga. wax ni sama tonto quoi Kanji. xaar xaar Kanji production. non dañoo nekk télé ñu télé ñu maa lay woo si combat bi. bu baax a baax maa lay woo ñëpp a ngi lay woo. waaw nga jàppale ko jàppale ma. ñoo eh, bokk koñ sax mais. xam ñu ngi leen di ñu ngi leen di kontaane yee ñaar ci. waaw tamit père. waaw ñu ngi leen di non père nee na am na lu mu leen préparé. père nee na am na lu mu leen préparé. waaw bàyyi bàyyi bàyyi ma yeggali. waaw bàyyi leen ma yeggali waaw bàyyi leen ma yeggali taxaw leen jeexagul. jeexagul xaar taxaw leen taxaw leen macha allah am na am na solo lagros yee ñaar ku daan am nga fa terrain ki daanu ak ki daanu ñëpp am nañ fa tere ah boobaa du gis motivation bi waaw mais c'est-à-dire bu joxee ki daan kase tamit loolu day lii na jox ñaar ñëpp kon kon kon kon saay nante la waa saa waay nante la nante la. borom xam-xam la. kon que nangu woo ko teg. Ah. Ah. waaw teg affaire yi. ju boole ñaar yaa. Ah. xam nga nangu ko boole quoi pour daan jël. léegi xam na ngay def. foo boo ñu jox terrain maa ngi moom nañ dend kër. non yéenay yéenay dend. waaw waaw. <laughs> waaw macha allah. aja doon jël. waaw jël après. non dend sax. voilà aja kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci ci seen ci seen signature de contrat kontaan nañ ci tout la famille de la lutte. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñaar ay exemple ngeen ci làmb. yéen ñaar ay exemple ngeen ci seen ay moroom parce que am ngeen sportivité te saa yoo leen bëree mu neex seen ay moroom ñëw seetaan si leen suba incha allah làmb dafa am arène nationale Papa booy Djiné mooy bëree ak Nandi Fall Sam Production moo ko tëgg mu nekk en direct sur la ci Bantamba TV incha allah ñu fas yéene ci bégalante ak yéen le 16 lañ leen di jox rendez-vous ñuy kontaan bu baax ci yow. waaw Modou mbay mm-hmm. euh, avant tout tamit damay remercier sama staff yëpp. atia ku si mel ne ñoom Serigne Faye. Mm-hmm. Cheikh Niang. Mm-hmm. Baye Djili Tarkinda du ma noppi di ko gërëm parce que kooku kuy sonn si man la. mën naa ne mu ngi ba bitim réew mais daanaka sama TikTok yeeg yëpp moo ko seere communication bi waaw sonn si Diouf production. eh booy jug leen jug leen ah, taxaw waaw di gërëm ñëpp daal gërëm ñëpp doo nit sax. mbokk yi rendez-vous bi le 16 la incha allah Baye Balla Mbuub. Modou dama dama bëggoon dama balaa ñuy dem rek monsieur Moussa Samba Ndox Mbaye gaz Ndox ah. eh, eh, eh. Mbaye. Samba Ndox Mbaye nit ku baax sa Ndox Sama. waaw Ndox. ku mën a tëgg la. Ah. kenn du moom ñu koy bëggee bu baax baax di kontaan ci moom. waaw kooku taalibe sëñ Massamba Ndiaye borom ndigal borom ndigal Ndiaye ñu ngi koy ñu ngi koy seetu joyeux anniversaire di nit ku baax di nit ku gore mi ngi ko souhaité bon anniversaire macha allah kontaan nañ ci yéen mbokk yi di leen jox rendez-vous le 16 ci Bantamba TV jaajëf yow yéen loolu